religion dans, dans, dans les tiroirs. Très bien Moussa aujourd'hui datu la 16 bi lu ko waral. waaw datu la 16 lan moo waral datu la 16 bi. da ngeen di opérer les même techniques yi ngeen opérer woon sous Macky Sall. non dañuy def rappel rek. rappel wax sénégalais yi da ngeen di xaar ba mu def. wax sénégalais ngeen ngeen def tibb tànk bi moom. non defuñu tibb euh, tànk def leen tibb tànk def naa le 14 si je ne me dafay def face à face ak presse bi. waaw cest dire li ma bëgg li ma ah, bëgg. li ma bëgg wax moom mooy tey. Euh, li ñu doon def ci Macky Sall ci Diomaye. ah effectivement non Macky Sall li ngeen de non mais yow. non li Macky Sall moo ëpp carapace Diomaye. Macky Sall moo ëpp carapace Diomaye. moom mais dama ni est ñoom Ousmane Sow il vous visez le premier ministre du Sénégal. parce que hmm. déjà il a une date et vous prenez a autre date. est ce non loolu est ce amul li non mais stratégie bi ma koy bi ma koy publier sama page. Moussa ak léegi. Moussa cela fait au moins 15 jours. mais Moussa la. au moins ça fait 15 jours. Moussa mën nga toog fii ne date boobu noonu. da nga ko jàpp par hasard question de stratégie. tout est question de stratégie. xam nga li ma la bëgg a wax moom mooy tey. <laughs> ñun ñun li ñuy def nii. li ñuy def xajul ci jomaay xajul ci boppu jomaay. xajul ci jomaay xajul ci boppu jomaay mais xaj mais ñi mais ñi ngay wax nii jëlee nañ fi comme li ma wax suñu juriste bi de mu ñetti génération politique la ñu suul. yéen moom waxaale wuñ leen yéen moom waxaale wuñ leen mais ñi fi nekk nii nga ne amuñu poigne bi Macky Sall amoon suul nañ Macky Sall suul waa kër Idrissa Seck suul waa kër Khalifa Sall ñoom ñëw taxaw non bëgg c'est mu am lecture lecture bu gën a profond lii xam moo tax ma bëgg mu am lecture bu gën a profonde lii ñee dañoo nekkoon ci seen déclin carrière te gis nga li daaneel Macky Sall c'est processus Macky Sall daanewul ci benn jour dañu nekk ci facteur parmi les facteurs les plus déterminants ci processus boo toogee ak Macky Sall à tête reposée nga laaj ko lan moo précipité sa sa sa chute il va te citer le facteur Bougane loolu c'est indubitable. beneen bi moom mooy aussi mm. la preuve booy xoolee képp ku toogoon fii ci réew mi tey mm. sa cible première Bougane lay nekk parce que benn bokkul ci ñi nga xam mën nga leen imputer ay responsabilité ci ay détournement bokkul ci ñi nga xam ne tey ay faute de gestion mën nga leen ko imputer. parce que yëfi boppam la yor. léegi yëfi boppam la yor. Mhm. kooku ni mu ah, cliner. pour sénégalais jox ko bopp dafa yomb. waroon nga revenir sax pour sénégalais jox ko bopp. non dinaa si ñëw ci ci bi jeexantal bi. Hmm. ñun avec peu d'effort xajuñ ci jomaay xajuñ ci boppu Diomaye aussi. mais Sonko non Sonko Sonko déjà il a il a beaucoup de problèm à régler. xam nga Sonko il a beaucoup de problèmes à régler. déjà déjà il a il a un problème avec soi-même ban ban bugaan laa jàkkaar loolu. non c'est-à-dire booy Pastef boo leen dégloo. Ah. ñooñu ils ont ils ont ils ont le droit de délirer. Ah. mais tey boo jëlee boo jëlee Sonko mais loolu joxul droit mu saaga. non bugaan musul saaga. non saaga yi loolu sa loolu li ngeen wax ni enregistrement vidéo euh, audio la. boo xam sax jiitu na avènement bu ñoom Sonko bu euh, mais li ma la bëgg wax mooy tey bu dee des insan des insanités mm. sur l' espace public mm. ñoom Sonko ñoo ko fi indi di nga d' accord ak man. kan moo waxoon ni. waa kat kat xaaral ma wax na. Mm-hmm. kan moo waxoon ni les magistrats se sont donnés comme mission de tuer Ousmane Sonko de le dépêcher et de de servir. la viande fraîche euh, au président de la Macky Sall maanaam rey rey Ousmane Sonko. fees ko daggate ko ci ni mu yàpp bi ni mu ñorulee loolu ñu jox ko euh, Macky Sall mu lekk ko kan mu wax loolu Ousmane du du du moo ko bindoon. mooy muy wax clochardisation de la magistrature. waaw Diomaye bi moo ko bindoon. beneen moom mooy Birame Souleye lu mu fi waxoon. Amadou Ba moytul naanee këru Macky Sall wala nga ah, lekk mën laa rey comme ni mu def kële. mais na ko. beneen bi aussi Ousmane Sonko lu mu waxoon. en s'adressant à Macky Sall c'est là quelque chose entre les jambes loolu ku la ko wax wala ku ko wax sa kilifa nga xeex ak moom nga jaay ko sa bakkan ah kan moo fi waxoon hmm. Ahmed Khalifa Niass nga xam il a plus de presque quatre-vingts ans hmm. ni ba mu demee xawma tel pays peut-être ñu lakk fa way yàlla hmm. tey loolu yëpp dama koy jëlale mën naa bañ a wax ci wax yi ñaaw yi léegi léegi boo ñëwee Cheikh Mahi Niass Cheikh Mahi ñas léegi Cheikh Mahi Niass figure emblématique ci Sénégal moom non léegi léegi xaaral ma ñu xaaral xaaral balaa may fàtt balaa may ah, balaa may personne fii damay daaneel damay daaneel damay dama la bëgg wax ni insanité yi insanité yi insanité yi insanité non contexte non cause yi cause yi cause yi permettre ko cause yi permettre ko ñu egg ba ci Cheikh Mahi Niass cause yi permettre leen ñu egg ba ci Serigne Mountakha cause yi waru leen permettre ñu egg ci ba ci kilifa diine yi Cheikh Mahi Niass dafa taxaw dans un discours ni leen

yooyu noonu bon. non mais grand waxal mm. waxal rek. dem démonter le projet Pastef. xoolal indil argument bu dëgër bu solide. nga démonter le projet Pastef ñu saaga la. mais am na yu bari yoo xam ne vraiment rek. c'est euh, a a d'accord ak Moussa yëpp nag am na ci loo xam ne. am nouvelle opposition ñoo fi indi nouvelle opposition dans le temps je veux dire ñoom ñoo fi indi mais non am na même su d'accord ak Moussa aussi. histoire politique. non non dama ne non non c'est que boo nee ñoo ko fendi. oui peut-être. mais euh, eggul a ci saaga peut-être euh, mais Wade waaw loolu la quoi. Wade opposition radicale bi Ousmane Sonko da doon manipuler jeunesse sax pour ñu dem di daj. léegi Moussa xam nga la leen doon na à travers à travers la manipuler jeunesse pour ñu dem di taal ñu daj di këru responsable yi hmm. bu manifestation amatee bu ngeen demee seen kër yi xaalis bëri ngeen fay fekk. waaw Moussa man ma daaneel ma daaneel. loolu c'est une manipulation. injonction aux jeunesse ah, à la jeunesse. Mm-hmm. xam nga man xam nañ ko fii mm-hmm. ne coup d'état lay waajal. waaw mm-hmm. kan Abdoulaye Wade. Uh-huh. accusé ko fii ne coup d'état waajal waajal. sous régime du président Abdou Diouf. parce que dafa ne woon jeunesse bi mobiliser wu leen ngeen taxaw ngeen dem ci ministère yi. buntu kër tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy administration bi ngeen taxaw ku fi def na naka sudul noonu ngeen jëflante ak ñoom mhm. Abdoulaye taxaw na fii ne alkaati mhm. su ngeen dooree ngeen ngeen mën a fayu ngeen jël seen donte nag mën naa ni parti Pastef mhm. def na une irruption violente ci seen politique bi loolu on en a mais xam nga la laa dul d'accord sama duma ko mës a wax que ñii ñiy yëkkati ay saaga jëmale ci kilifa diine yi ce sont des militants de même les activistes non je ne le dirai pas. gis nga activistes non attends non non xaaral tous les les activistes de Pastef. non xaaral ma ñëw. comme qu'il s'agit de Mola Morgan qu'il s'agit de Ousmane Diagne qu'il s'agit de Ousmane Tounkara et cetera les Kayz Fof et cetera ñoom ñëpp boo leen dégloo ils ont le même discours. dañuy saaga carrément. d' accord très bien. man dama leen di suivre. d' accord très bien si damay suivre paquet voilà paquet bu mais man loolu du ma ko d' accord du ma confirmer ne ce sont des parce moo tax wax ni euh, mais mais wax na xaaral ma ma daaneel dafa wax ni. yow manipulation Sonko yi jàpp na la ah. non non pas manipulation tax wax ni ku fa saaga bokkoo ci man. dégg naa ko. waaw xam nga mais gëw ma ko xam mu tax gëw ma ko. waaw waaw ñii saaga lay promouvoir Ousmane Sonko moo ni Macky Sall dafa. ñàkk responsabilité bëgguma egg ci mot bu uti employé parce que il est violent dans dans ses discours ne taxaw ak saagakat di photo ak moom moom bi mu falo automatiquement taxaw nañoo ak saagakat ki doon sànni xeer noonu image boobu noonu moom da ko woo biir dañ ko woo biir pare taxaw moom maanaam lépp lu mu doon wax ci Macky Sall moom def na ko d'accord très bien en de cent jours très important te ëllëg mën nañu dal mën na dal keneen Euh, euh, gis nga lu xew Sénégal sax a inspiré beaucoup de pays à travers le monde gis nga Mauritanie temps am na ay émeute mm-hmm. mm-hmm. euh, parce que nguur gi am na ko fi toogoon di wax en fait gars dañoo foqati nguur gi ci loxo Macky Sall. Mm-hmm. Macky Sall à un moment donné il pouvait il ne pouvait te tamit am na ay erreurs yu ñu def loo tax loo lu tax conseil constitutionnel dem ba braqué wu léegi boo xoolee même le nouveau régime là ñoom li ñu fi indi nii. ñoom ëllëg mën na doon li leen mën na suba mën na tàng Sénégal tàngoor boo xam ne nii ñaanuñu ko quoi donc ñoom ñoom gis nga lépp loo xam ne ni oh, gis naa nag ñooy góorgóorlu quoi parce que gis naa ni euh, quoi qu'on puisse dire man gis naa si Ousmane Sonko ak Diomaye mm. euh, peut-être benn ambition boo xam ne gisuma ko woon si yeneen Euh, président yi fi jaar peut-être Abdoulaye Wade mais Wade avec son entourage tout ça ba pare Wade des fois aussi gars yi rek xam nga yu ñu doon def uh-huh. te il n'a pas peut-être il euh, y avait pas toute la hargne pour peut-être euh, yenn gars yi def leen li ñu jàpp leen mais tamit